daan ndeysaan grand combat grand combat grand combat grand ñoom ñaar Boy Jules moo leen boole ndeysaan ñoom ñaar ku ñëpp bëri nañu Boy Jules ndax Fourrière Boy Jules da kaa daan Bécaye daan Boy Jules ndeysaan tey lamb boole leen ñoom ñaar kon bokk nañ benn adversaire bu leen boole ndeysaan ndeysaan danaa la Fourrière bëri naa Bébé Diène waaye Fodé arrière na arrière na arrière na arrière na arrière na arrière na arrière na arrière saako yi Fodé daa arrière ba génn saako yi ndeysaan loolu nga benn avertissement arbitre sifflé na mais kabar kabar gu àndut ak julli la ndeysaan ndeysaan mais kaay bi fi mujj Boy Jules daanoon Fourrière bi fi mujj Caatu Jolof la daanoon ndeysaan Fourrière da nga dox si kawam Fourrière Bécaye Fourrière at Bécaye ndeysaan Leewtoo bi bar na ndeysaan Fourrière Bécaye Leewtoo ba bar na ndeysaan Mor Diouf mooñ fi woon ndeysaan oh Fourrière at Bécaye saan ña ngay Leewtoo Leewtoo bi diib na ndeysaan Leewtoo bi diib na Leewtoo bi diib na Fourrière ak Bécaye Assane Bécaye mépp na waaye dalul Bécaye ak Fourrière Bécaye ak Fourrière Assane ñoom ñaar ak noonu Assane ñoom ñaar ñëpp biñ fi mujj si victoire lañ fi jóge Assane Sane ñoom ñoo ñëpp si victoire lañ fi jógee Sane Fourrière ak Bécaye ña ngay lëtoo ñoom ñaar Bécaye mépp na waaye demul Bécaye dafa mépp rek waaye demul ndax Sane Fourrière dag na lëtoo ba arbitre bi waat na leen arbitre bi wax ak ñoom yéen a ngeen bëre ndax saaku yi fekkiwul kenn yéen a koy fekk ji ar bi sif la waat na ndeysaan ña ngay dem latéral ndeysaan Fourrière ndeysaan ñoom ñaar ñëpp si victoire lañ fi jógee waaye ñoom ñaar ñëpp bëri nañoo Boy Jules ndeysaan Boy Jules dafa daan Fourrière Boy Jules Bécaye da daan waaye Fourrière bi fi mujj dafa daan Caatu Jolof waaye Bécaye bi mu dafa daan Boy Jules ndeysaan Fourrière bëri na Bébé Diène moom Fourrière ndeysaan waaye Bécaye bëri na Nokia ndeysaan Fourrière wàcc na ba tolloog moom jógaat ndeysaan ndeysaan ñaari xale yaa noonu ndeysaan ña ngay lewtoo ndeysaan def na demi flexion daan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngay damantay baaraam bi àtte na leen am nga benn avertissement Fourrière am nga deux avertissement Bécaye am benn ndeysaan at bi sifflé waat na yéen la ngeen waxoon la ngeen waxoon defoo leen ko ndeysaan eh, door na Siteu door na Bécaye maamu na Bécaye ngi dox si kawam Bécaye ngi dox si kawam Bécaye ngi na ci bu suuf raxasu daan Fourrière nangul taxaw Bécaye Bécaye song na saan ba song na ñoo saan xeex dóoral ma dóor saan ña ngay dóorante ndeysaan Bécaye ak Fourrière song na ko Bécaye eh, daan na Fourrière arnaqueur bi arnaque na ko arnaqueur bi arnaque na ko ndeysaan arnaqueur bi arnaque na ko eh, eh. ndeysaan yóbbu na ko Fourrière arnaqueur bi xoolal xale yi lañ def xoolal xale yi lañ def ndeysaan xoolal xale yi lañ def ndeysaan oh ndeysaan Fourrière ak noonu Bécaye ak noonu ndeysaan Bécaye a ngi noonu ndeysaan doom nday Fara a ngi noonu ndeysaan doom nday Fara a ngi noonu doom nday Fara a ngi noonu ndeysaan oh ma ngi koy yëkkati yëkkati na ko ndeysaan yëkkati na ko yëkkati na ko ndeysaan oh ña ngay saafante ñoom ñaar ña ngay saafante ñoom ñaar ndeysaan Bécaye nga wax ak moom Bécaye nga wax ak moom ndeysaan Bécaye a ngi noonu di ñëw ndeysaan Bécaye a ngi noonu di ñëw Bécaye a ngi noonu ndeysaan Bécaye a ngi noonu boo koy Bécaye Fourrière a ngi nii dem ndeysaan